asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi nuy seetaan te di nu déglu ñu ngi fii ci kër sëriñ Abdoulahat Mbacke ibnu sëriñ Modou Faty Khary ginnaaw bu mu jotee ndigal ci xalifa général de Mouride sëriñ Mountakha Mbacke yàlla na fi yàgg lool te wér wàcc ci sëriñ Moustapha Mbacke xalifa sëriñ masamba ñëw ci kilifaam sëriñ Cheikh Mbacke moom xalifab sëriñ Modou faati Khary ak mboolem njabootug sëriñ Modou Faty Khary sëriñ Abdoulahat nag ñëwaat di leen fàttali bis bi nga xam ne mooy bis bi ko boole ci sëriñ Touba. mu di bis bi muy fàttaliku sëriñ Modou Faty Khary te sëriñ Modou Faty Khary joxoon ko ndigal ne ko bis bii saa bu dellusee na nga ma ci ñaanal fàttali ma moo tax bis bi nag sëriñ Abdou Lahad di ko yëgal mbokki jullit yëpp ak mbokki taalib yëpp bàyyiwul kenn di ko yëgali tamit mboolem ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi mu di président Macky Sall ak ki nga xam ne moo di premier ministre am ak ministre de l'intérieur ak sous-préfet ak gouverneur ak mboolem autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi mi ngi leen ko yëgal di ko yëgal li tamit umma islam bépp bàyyiwul kenn mi ngi leen koy yëgal bis bi nag mi nga war doon dimanche war a tolloog le 3 février moo di ko amale fële nga xam ne moo di daaru muhin nekk ci digganteem ak xelkom ñaar fukki kilomètre ak juróom moo tax sëriñ Abdou Lahad di leen yëgal bis boobu di fàttali nag ñi nga xam ne ñoom la daan àndal bis bi muy dayre yi ak mboolem ñi nga xam ne kuréel yi nga xam ne ñoo ànd ak moom di liggéeyal sëñ Modou Faty Khary fii ci kippaaram ak ñi nga xam ne ñooy jàngkatu alxuraan yi nga xam ne naka jekk bis bi dañ ci daan taxaw mi ngi leen koy yëgal di ko yëgale tamit jàngkatu xaside yi ku tudd kër sëriñ du Faty Khary tudd jàngkatu xaside yi mboolem jàngkatu xaside yi ñiy durus ñii yëkkati mi ngi leen koy yëgal di ko yëgal mboolem tund wi nga xam ne moom lay defee foofu nga xam ne fa lay defee bis bi nga xam ne da ciy fàttaliku sëriñ Modou Faty Khary li ko dale ci Colobane Mbar dëkk yooyu nga xam ne moo wër foofu fépp mënta tudd yëpp waaye mi ngi leen di woo ci bis bi di leen ci séentu na leen di daan séentoo bis nee na mooy bis bi nga xam ne képp koo xamante ni danga nga koo bëgg a jàppale nga jàppale si ko ci bis bi képp koo xam ne da nga koo bëgg a lebal nee na nga ñëw lebal ko ci bis bi nee na bis bi mooy bis bi nga xam ne moom la ko sëriñam waajuram digaloon ba mu ko dalee def ak léegi nag toll na ci ñeen fukki at 1978 la ko tàmbali woon di def ba léegi nag mi ngi ci gis mësta jëlal benn gis mu koy ànd ak mboolem njaboot ak sëñ Masamba gi nag bàyyiwul kenn ndax ñoom mooy moom mooy ñoom moo tax bis bi mi ngi leen koy yëgal di ko yëgal mbooleem ñi nga xam ne nag ñoo daan ànd ak moom ci gan yi di bàyyi seeni kër di bàyyi seen i dëkk di ñëw ci bis bi ak mboolem ñi nga xam ne nag sëñ tubaa da koo mbooleek ñoom muy seen sëriñ ñoom mi ngi soññ boppam di leen soññ di soññ ci mbooleem koo xamante ni mbégam sa mbég la mi ngi lay soññ ci bis bi bis bi nag programme bi nii lay tëddee bu nu xëyee dana amal njàng alxuraan ak xasida def salaatu ala nabi ak bernde bu nu jullee tàkkusaan ci la ñuy amal cérémonie officielle bi moo tax nag mi ngi bëgg li nga xam ne da koo bëgg a waxtaane ak mboolem taalibe yi bëgg koo waxtaane ci réew mi bëgg ko waxtaane autorité yi ak mboolem ñi yaakaar Serigne tuba war ko waxtaane waxtu woowu la koy waxtaane moo tax nee na ni ñëpp ñëw teewee ci cérémonie officielle bi bu nu noppee ci cérémonie officielle bi ci la ñuy daal di dugg ci baas bi nag delluwaat ci kër yi xéwlu bu nu xéwloo ba noppi dugg ci baas yi amal njàngam xasida ba bët set bu bët setee mu toogaat yeewi leen yeewi leen soññaat leen waajalaat bis bi déwén moo tax sëñ Abdou Lahat nag nee na bàyyiwul kenn koo xamante nii rek xelam dem na ci yow ñi mu bokkal lislaam bi ak mbooleem koo xamante nii rek sa wëllëreem nga wala xaritam nga wala jàpp nga ci moom ak cofeel ngir jëmmi yàlla ak sëñ tubaa ak sëñ Modou Faati Xari nee mi ngi la koy yëgal jigéen ñi nga xam ne naka jekk waaj wi ñoo ci daan taxaw ànd ak daayira yi ñoo cay njëkk ñoo cay mujj sëriñ bi nee na mi ngi leen soññ ci bis boobu te di yaakaar na ngeen ci taxawe nu ko raw ngeen taxawe ci ndax ku ci liggéeyal sëriñ bi kat yàlla fay la ndax bis bii rek la am mooy bisab sëriñam mooy bisu waajuram moo ko boole ci sëñ Tuubaa moo tax ñu maal ko moo tax ñu koy jox addiya moo tax bu toogee ci kaw ñëpp toog ci suuf kon moo tax lu mu man ci teral ko ak fonk ko ak ndigalam loolu mu sëmbat ko ba mu màgg ba ñëpp xàcc moo tax muy woote ñëpp bis bi nag ñu fàttali leen ko dimanche lay doon mu war a toll trois le mu di ko amale ca Daaru Mahim muy départ ñi nga xam ne dañuy jóge Tuubaa fii la ñuy départ ci këram gi dina am oto yu taxaw ci buntu kër gi di yóbbu ñëpp kon nag bis baa ngi noonu sëriñ baa ngi leen ciy séentu di leen ci woo di ñaan képp sëriñ Touba mi nga tax mi nuy wootee ku ñëw ci bis boobu ak sëriñ Modou Faty Khary mi nuy wooteel ak képp koo xamante ni wuy si nga ko ci bis bi yàlla na la yàlla wuutu ca këram wuutu la ci sa njaboot loo xamante ni mënuloo ko sa bopp nee mi ngi ñaan ci barkeb Seex ma Masamba ku ci ñëw yàlla nañ ca tase njëggalal sunu borom ak ngërëmal sëñ Bamba wasalaamualeykum wa rahmatullah. salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bokki jullit yi bokki taalibe yi <clears throat> ñu ngi sant sun borom tabaraka wa taala di yeesal kóllëre yi gi nga xam ne mboolem ñenn ñu seetaan tax xamante ñu ngi fedd li kóllëre yi loolu nag maa ngi dëkkal li sëñ Saliou wax loolu rek booy wax ji ñu ngi koy yëgal bokk yi taalibe yi xarit yi am ni jàmm yi ak képp koo xam ne nii sa waajur jógoon na liggéeyal sëñ Tuubaa jot ngërëmam bëgg nga jëla jël la nga nekk tey rek def naa la mbokk def la bu xarit li ñu ak yow nag fas yéene bëgg nga lebal ma ci lii mbaa nga fay ma ci waaye lii rek laa bëgg ci laay leb ci laa bëgg ku ma ci fay itam kon nag maa ngi woo ñëpp gannaaw loolu nag nii mu ko waxee autorité yëpp maanaam maire Colobane muy Alaaji Modou Fall ak préfet ak sous préfet bu Gossas ak gouverneur ñoom ñooy ñi xam ne ñooy suñu kilifa localement maa ngi leen di seetu daaw nag gouverneur waaj na jekk lool bëggoon na ñëw ba woote waaye sut borom gannaaw bi mu jot ndigalul kilifa réew mi ba tax mu fomm waaye yebal préfet ak sous préfet kon nag gannaaw loolu maa ngi woo képp koo xam ne sama am di jàmm la danaa jàpp nag Matar baax ministre sport naa ko woo maa ngi woo itam Ablaye nduur mi nga xam ne moo nekk ex DAS président de la république te nekk ministre du conseil ñooñu nga xam ne ñoo jege président de la république maa ngi koy yëgal itam Birima Mangara mi nga xam ne mooy ministre du budget ak mm, Bamba Ngom Bamba Wan mi nga xam ne mooy directeur euh, cabinet wu ministre du budget di woo mboolem koo xam ne nii nag maa ngi seq jàmm ak foo mën ne maa ngi woo ummal islaamiya nag rawatina ak waa kër Seex Seyd Laaj Si maa ngi woo njabootu uh, waa Cenaba maa ngi woo njabootu kër Seex Amala maa ngi woo njabootu uh, Ñaseen Ñaseen yi muy Tayba Ñaseen muy Tayba Ñaseen ak Lewna Ñaseen yëpp maa ngi leen diwoo maa ngi woo waa kër Seex Saalibu maa ngi woo kër Limaamu lay Yoof maa ngi woo itam waa kër si si si sëñ am eh, alaaji Omar Fuutiyu Taal mi nga xam ne mooy abul anbiya nga leen di woo ak képp koy wax laa ilaaha illallah rek bëgg naa nga ñëw fii ñaanal leen sunu waajur wi nga xam ne ci moom la nu yàlla jaarale sant nañ ci yàlla nag ndax waajur wu jàmbaare wu fonk lislaam wala yar ci lislaam jàngal la alxuraan su son borom dogalee muy sa waajur faw nga damu ci kon nag sant naa yàlla li ma sant naa it moom mooy Seex Ahmadul Xadim moom la yàlla feeñ ci moom maanaam li may sant nag mooy sëñ ma Masamba Mbàkke dafa nekk ci ñi ko doon liggéeyal liggéey boobu mu ko liggéey nag ci laa sant yàlla ndax bu ko liggéeyul woon ba jot ngërëmam tey jii lii ma am duma ko am maak sama moroom kon nag ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp tey séentu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh